aasbillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim bokki jullit ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa fukkeelu guddi gi ak juróom moom buñ ci duggee juróom benn rakka lay doon mu di ñetti sëlmal rakka bu nekk am suratul fatiha ak tamit fukki iza jaa nasrullahi moom mooy li nga xam ne moo di fukkeelu guddi bi ak juróom ku def naafile yi ba pare ñaan goo ca teg rek ak salaawaat yoo ca teg julli ci yonent bi wala nga def ay istixfaar baax na ba tey wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa